d' abord li may njëkk wax si prison damaa ngi nuyu ant euh, avant tout waa 100 mètres di nuyu ci 37 xool prison yi nga xam ne moo am si Sénégal parce que y' a 37 xool kaso yu fa am am Sénégal xëy na fii nag euh, ñoom ñu gën a miin mooy ay dixième bi nekk kees te boo demee ba dixième am na benn chambre boo xam ne ñu ngi ko tuddee Iran Ndao maa ngi nuyu quoi moom sax xam na si foofu dara quoi xëy na gars yi mosuñu dégg loolu mais am na chambre boo xam ne mu ngi nekk dixième si kaso bi nekk kees. ne boobu irandaw moo ko moo na ko tuddee moom jaar na fa ndax xam na te moom li mu def foofu noonu ba am fa néeg loo tax mu tudd ko bu ko ñeneen defoon 100 mètres dina gën a yaatoo léegi moom gën a métti nag sama première question bu jëm si biir 100 man maanaam en tant que Rebeuss quoi première question maanaam maanaam li ñu woowee rentrant première jéemaan bi parce que bu ñu la jàppee du ñu ñëw rek defeere la mën nga nekk defkat police ni la taral jàpp la xam nga mën na la jàppee ak saafara mën na la jàpp ak sàcc mën na la jàppee ak loo xam te ni da xiif mën na la jàppee loo xam te yow t'as rien compris sans départ mën na nga nekk mën na la jàppee lu nekk mais li ma gën a metti mooy bu buñ la jàppee biir chambre li ñuy wooyee un rentrant avant rentrant da ngay jàll fi ñuy wax cours de roqa foofu na lay simbi maanaam taasu neen yaramu neen ñu xool ndax dugaloo dara si biir chambre bi après nga soog a dugg nag rentrant rentrant mooy xool première chambre bi nga njëkk dugg bi nga njëkk a dugal nga romb ay giri ay kànnaar ay nit ñu langal seen loxo ay nit ñu xoosu yaram yu xoolee ko loolu nga dugg si première chambre bi sa tànk bu duggee nii beneen tànk bu taxawee nii dootoo bouger chambre chambre yi day liggéey ay cinq personnes parfois six parfois sept ñoom dañ lay bàyyi nga xoolee pendant deux heures de temps xool ni néeg bi nii tellement c'est tellement populaire parce que mënoo jël benn néeg boo xam ne nii mu war a jël cinquante personnes nga dugal fa cent soixante quinze personnes man maa ngi fu ñuy wax chambre dix maa ngoone moo nekkoon chef de chambre bi tax ak ma tax ak chambre neuf euh, ata maa demba mi nekk fii tey Grand Yoff moom moo nekk foofu tu vois nekk suñu gannaaw foofu nag mais pour ba pour borom alal bu mu demee ba naa leen la loi c'est pour les pauvres dañuy wax dëgg te yàlla mu tax kaso bi pour baadoole yi la quoi ñu danoo soxla ay solution ci biir kaso bi xam nga mais euh, da ngay jàpp benn jelmaan nga dugal si néeg boo xam ne benn néeg bi ngay dugal si benn prisonnier foo mu dagg parce que dañuy wax pour ay solution dañuy wax problème pour trouver la solution il faut poser le problème si y a rien tu vois kon donc ñu bu demee ba jël combat bi tànn ko ñi daw ñëpp daw affaire kaso mais am na ñu tëdd fii ay kaso ñu ñu tëj ay 10 ans 12 ans mënuñu si ŋàng bu ñu génnee parce que xëy na maîtrise bi parce que kaso moo mel noonu dafa am xam ne waa pour baadoole yi la am foo xam ne waa pour borom alal la yow mi sàcc ganaar yow mi toxo yow mi jàppe benn juin yow mi jàppe benn coton yow mi jàppe benn leneen leneen a nit yéene bokk même chambre ma nekk mën nekkoon xool maa ngañ mi rey nit bu wal fajar yi ñoo bokkoon nekk maag jumeau yi nekkoon si seex yi mooy ñaari boyo bi ñoo bokk même nekk ñu ngi job 100 mètres 1827 jamonoy colonialisme daan fa dugal ay fasak ay arme la ñu fa dugal ay nit boo dayul nag boo dundul si àdduna boo laayful doo xam li nekk si kaso bi ñëpp ñoom kaso benn hôtel wala benn appartement wala benn genre buy jaay shawarma wala hamburger la kaso mooy jeel kaso xam nga la mooy kaso mooy fi nga xam ne xoolal lépp lu la doon la ngay loo booy tëdd da ngay rang booy lekk da ngay rang booy dem douche ba da ngay rang booy génn appel da ngay rang bu ngeen bëggee xam li am biir 100 mètres loolu moo am biir kaso yi te kaso yëpp xam ne naan 100 mètres mais dixième moo gën a bon si kaso yi nekk Sénégal fu te moo nekk kees 100 mètres bi ay quelques chambre dafa gën ñàng rek ay chambre 4 ay chambre 3 xam nga ay chambre ay chambre 9 ay chambre 10 mënuma gëm nga jàpp benn doomu jàmm tëkke mandaam 7 ans nga xëy si waxoon ni ko génn nga ñibbi mais jërmaane si amuñu yére yu ni sol ma ñàkk suma ndey benn yëre bi ngay fóoti nii boo tege benn siwa ndox nii nii si woon ndox nii pour fóot sa yére nga dugal ko nii si biir di fóot nii fóot nii weñ ndox mii nii y'a vingt personnes yuy xaar ndox mii pour mën a fóot seen yére mënuma gëm en tant que sàngar ndox mi ndox mi ndox mi chaque instant di ñëw di ñëw di ñëw di ñëw ndox mi xool day ñëw minuit lay ñëw une heure du matin six heures ñu tëj robinet yi bu ñu demee ba jël jel bi jël lu mel na ko xoolal fi ni ngi di demee douche boog di jonkon toilette bi defa benn barrière benn morso ki jonkan day jonkan nii di dem duus ki sangu day sangu nii benn rideau moo nu nii benn rideau te kii saw bu ñëwee day taxaw si yow mi jonkan di dem duus moom foofu lay taxaw di saw sawam ki sangu benn rideau moo leen séparé te boo fa dem da ngay rang te te sangu bi liste la xam nga kaso xam tax mu garaaw lu tax ñu war a sensibiliser képp ku dugg si kaso boo génn ñu ñu ñu seet la topp la ñu xool ndax feebar loo mais yaa gars yi la ma tax seen yaram boobu noonu loolu jegaan bi ngay lekk nga toog vingt jours doo dem douche mais da nga wér xam nga dafa am lu ñuy wax torture pour ñoom torture jàpp ni di rey nit ki mën na la torturer pendant 2 ans 4 ans 5 ans nga soogee dee sans trace nous sommes ñu dinaay dof xam na lu xew gis nañu ay torture yoo xam ne peinture la bu ko bu ko peinture sa gàlle boo fa dëkkee pendant des années da ngay dee te doo xam sax loo rey torture la jël nit ki jël nit ki di ko sàkkaloo yow heure bi ngay dem douche ak heure bi nga dul xooxoo dem douche kooku yaa ngi koy rey. dañ lay jàpp teg la ñuy wax mandat dépôt bañ la atte fàtte say dossier maam ko xam ne mu ngi dëkk ba Saint-Louis kii dëkk ba Tamba kii dëkk ba Louga bu ñëwee ba 100 mètres jagaan ba bugg a ñàkk na parce que amul bool dina ñu yaatal sax yeneen wàll bi te ñu ngi ñëw sa bool mënuma gëm ñu dugal sa bool sa boolu añ 100 mètres ay 2 si ngoon nga fa bool bi nga taxaw rang. teg sa boolu añ ay deux heures huit heures si guddi ñu soog a dugal boolu añ bi sa biir néeg jël ceeb bi jaxase ko mel ni kuy jox ay xaj wala ay mala les prisonniers yi ay nit lañu comme ñun ndagam bàyyi xool que droit de mouton sax dafa am mais na droit de nit la moo tax cent mètres booy génn loolu lay conseillé kaay bu fi ñëwaat de dégg nga loo nga dem nu jox la benn fooy benn këyit mais këyit boobu moom ngay moom moo la yóbbu ko ba sa gàlle si kaw nag nga dugg oto boo xam ne da ngay paas cent franc wala deux cent ay biis yi te benn jour la doon mooy mooy sa ticket bi ngay jox boo génn fekkee sàcc moo la fa dugal dañ lay bind sàcc la fa dugal jox la kayit bi boo demee ñu xam ne yow ku liir bi dina xam yow ñu fa dugal dañ la wax ne lii moo la dugal bi cent mètres conseil la nga dem mais dañ la war a jël dugal si benn salle attendre la pas télévision xool sa yaram ndax feebaroo jël benn moyen weccit jox la ko kaaw ba bu ñu tëjee 10 ans dañ lay fay fii dan lay tëj 20 ans am na ku génn temps yi passé kaso génn laaj xool seen kër ah fu mu nekk ñaata pas nañ fi jàpp 100 mètres libéré xool ñu ne xool ñibbiwuñu ñenn ñu ngi buntu 100 mètres ñu ngi si ñu ngi foofu fa loon dëkk ñenn gedd boo ko dund nag doo xam am na ñu ay chambre 4 am na ñu nekk ay chambre 5 ñu nekk ay chambre 12 chambre 13 chambre yooyu am chambre yoon xool garaawul bariwul nit te di nga tëdd mais yeneen chambre yi xam ne fa la geng si nekk nee naa la sa rentrant rek da ngay jommi man gis naa ku dugg si gis naa ku ku dugg si chambre bi nii entrée dugg si dafa dugg si mais ay yuuxu loon ay yuuxu yuuxu du yuuxu ñu koy xool nii rek boo amee problème ñu problème mu fu nekk